Bienvenue sur Salam Vision. ci yàlla dolli ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla dool dino ay maqaam yàllaw Euh, tey nag ñu indi gan gu bees tàq ci biir kër gi ak mu ngi wuyoo ci turu soxna ay Aidara Mboup mu sëriñ Babacar moom nag lañ fas yéene dalal tey ci biir Sans Limite TV mu indi yu yees tàq yoo xamante ni ah, mën naa ni sax ñu ngi ko fi door a gis ci ay garab yoo xamante ni day faj ak liggéey yu bari yoo xamante ni da koy def moo xam ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu euh, bëre moo xam ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu politicien ak ñi nga xamante ni tamit dañoo yor ay feebar ay jàngoro yoo xamante ni dafa nekk ci seen yaram ak ñi nga xamante ni tamit dañu leen def ay liggéey yoo xam ne moom am na ci ay saafara yu bëree bari waaye balaa ñuy dugg ci biir laaj rek dañ koy daal di bàyyi mu présenté ci internet sans limite TV yi nga xamante ni ñu ngi koy seetaan soxna Kya ñu ngi lay nuyu di la ziar di la bu baax a baax ci sans limite TV. bisimilah maa ngi nuyu yàlla subhana taala nuyu sama yaay ak sama papa. nuyu yeneentu bu sedd bi nuyu kilifa diine kilifa aaday nuyu sama sëriñ sëñ Babacar Sy radiyallaahu anhu nuyu yéen tamit bu baax a baax Abdou nu nuyu borom site bu yëpp yëpp yëpp yëpp nuyu tamit macha allah ñi ngi lay dalal bu baax a baax pour la première fois fi nga xamante ni moom moo di ci euh, sans limite TV mm. ñu bëggoon xam rek euh, balaa balaa balaa ñuy dugg ci biir waxtaan bi mm. dañuy daal di bàyyi euh, mm. soxna Kya mu daal di présenté wu internet sans limite TV yi gën ko xam bu baax a baax fan la cosaanoo fan la jugee ak li muy def fan la ko jàngee bisimilah soxna Kya Aidara Mboup taalibe seen Babacar Sy la rabbi taala anu man de ma juddu Mali yaru Mali mag Mali botoon ni ma doon Sénégal mais sama papa mooy Mali moo euh, Moussandou Mboub jóge Saint-Louis sama yaay mooy malien kilina naa nani ko ani maram ko awala jigila woytala suma fina euh, su nga ma laajee soo na kii Aïdara Mboup fan la mu cosaane ba fan la mu jógee ba xam-xam fan la mu ko jële ma di si content chaque jour maa ngi si internet bi ma ne géwél mën na tagg doomu adama woyal la waxal la mais yow mii nga wax sa bopp yaa gën xam sa bopp plus que beneen nit ki ma soxna ke ay dara bu man descendant Mor Fidiane Diabaté la Mor Fidiane Diabaté kala kala jula sangu be makka dafara jëli ke kangara jëli ke samsuma jëli ke Mor Fidiane Diabaté bi nekkoon almaam Samori Touré man descendant moom la sama yaay tam mu jóge Kirina dara ba naa ni ko ani maram ko man de doon xam-xam bi tëpp ma tëpp rek ñi ma woo soxna ke ay dara bu tëpp ma tëpp rek doon borom rawaan dama ko doon dama ko doon waaw waaw jànguma ko dama ko doon macha allah. macha allah danga ko doon maanaam bu ma la déggee ci say biir wax ci sa maam nga ko doonoo. ci lam ak lan nga njëkk a commencé liggéey bi. Hmm, papa wax bi neex na tey macha allah hmm, liggéey bi ni ma ko commencé fétiche laa ko commencé. Malien nee na su ma nit laaj la nga ne hmm, dama commencé aussi xob bi dama commencé am na keneen ku la gën a xam. sama liggéey bi ni ma ko commencé fétiche laa ko commencé. xam-xam bi li ma ko doonee yàgg na papa du tey parce que suñu famille yëpp presque bi yëpp jigéen yëpp ay borom eh, ay fajukat la ay seetkat la mais yàlla mun na de sonn ak ay daram bu yàlla ma ko may tudd bi yàlla ma ko may euh, bayra bi yàlla ma ko may adduna bi yëpp xam ko yàlla ma ko may kilifa diine kilifa ay day président yi mbuur yi ñu ko xamee mais xam-xam bi mu ngi si suñu famille dama ko doon sele sang sonn ak ay daram bu suñu xalaajee liggéey premier liggéey bu mu def adduna mooy fétiche fétiche de chaque jour ma wax internet bi fétiche façon defa bare. man soo nekkee ay daram dama amoon jafrin dama amoon kungéré dama amoon togofe bla am na fétiche bokkuñu fi ma ko jëlee am na fétiche ma jëlee la Guinée Conakry am na fétiche ma jëlee ci biir mam ba ma ko mais bare naa dëkk yi bare na fi ma ko jël su ma ko lim te wax bi du jeex. am na fétiche bi ma jëli eh, Nigéria. am na fétiche ma jël Cotonou. à papa su ma ne ma expliqué du jeex am na fétiche ma jël karakou am na fétiche ma jël porte nouveau indi ko ci biir Mali ma yàgg ak moom di taba tabaak moom adduna yëpp xamuma parce que fétiche Koungheul de xëcc mbooloo de xëcc nit yi sa yëfu di neex nit yi nit yi di la bëggu moo tax ma jëli ko noonu togo fa bi laa day faju xaju yi moo tax ma amoon ko adduna yëpp xam na ko ni ma ñëw fii Sénégal sëñ Babacar Sy radiyallahu anhu ne ne soo nekkee ay dara bu fétiche bàyyi ko parce que dama ne kon ñaani nit yi ba taala mi ngi ni ma dem àll bi ñibbi si comme tey ni nga dugg sama néeg kaay nii mhm. yaa ngi gis néeg yëpp ay garab la mhm. mais ni ma ne amoon fecc itam su nga dugg sama neg liggéey liggéeykaay deret kese la nga xentu mhm. boo yow di nga daw génne nga ne hmm, jigéen bi negam yëpp deret la da xam xam-xam dégg la papa ay fenkat yi ñoo bari xam-xam ni mu laajee di nga ko joxe ndaxam liggéey man def nii nu mu laajee mooy sama matériel yi mottu du tax client yi di génne si internet bi saaga soo nekkee ay daram bu xamul dara mais alhamdulilah je touche les bois depuis ma dugg Sénégal kenn musu wax soxna kii ay daram bu lekk na sama xaalis kenn musu wax soxna kii ay daram bu dóorkat la. Mhm. kenn musu wax ay soxna kii ay daram bu sàcc la kenn musu ma indi convocation bu ma police. Mhm. xam-xam i war a leer papa comme perkal mhm. comme yére bi ma sol. soxna kii ay daram bu ma amoon fétiche papa yaa ngi wax waxtaan sëñ Babacar Sy radiyallaahu anhu dama amoon photo bu ndaw bi ma jëndoon mil francs taf ko sama biir néeg fi ma liggéey sama liggéey euh, fétiche ni ma liggéey ba pare boo ñëw photo bi ma clienté nii ma daw génne ma daw génne ma dem si benn pa pa boobu kilifa la Sénégal njaay yëpp bu xam ñu yóbbu ma foofu ma expliqué ko mu ne léegi jële fétiche bi nga génne ko ubbi nga dem wutu fi nga dëkk ma ne deet fétiche bi na de wutu valise ma dugg fétiche bi ci biir valise bi yëg ko ci kaw man ma des kër gi ma toog quelque temps après ma jël fétiche bi dellu ko fi ma ko jëlee pare ma continuer ñoo def sama liggéey xob yi. kon tey euh, mën nga dëggal que ni maanaam euh, bu ñu waxee fétiche ci nga xamante ni moom moo di seet wala ñaan wala def ay mystique lu baaxul la ba ba tey jii ni nga bàyyi ko dem defi ji su ma waxee yàlla bugg na Sonakia macha allah chaque jour ma ko. Mm. Sonakia ay dara bu voyagé naa 24 pays. 24 mm. pays yooyu yëpp ma ko voyagé fétiche ma ko joxee alal yi ma yore dafa yomboon fétiche moom ma ko joxe mais lu tax ma bay fétiche nga xam loolu lëndëm la woon man soo nekkee di ma nekkoon si lëndëm mais xamuma ko woon mais yàlla subhanahu wa taala génne na ma si ma ba tey ku nga xam soo nekkee su nga ko soo nekkee day wax féticheur la chaque jour moo ko si inter bi féticheur ak chercheur bokkul yére ma sol bi ndi yére doon la man chercheur la loolu dama ko doon ma doon borom rawaan loolu dama ko doon si sunu famille ëpp te bu ma ñëw Sénégal de waxal lii lii laa doon de non non dama ko doon sale sans ndax am adduna bi su nga génn nga wax nit yi lii laa doon lii laa doon am na ku la gën a xam day gën a kii fene rek la mun doonu dara dafa ñu dóor nii ci Sénégal neuf ans Sénégal bientôt dix ans alhamdulilah xam-xam son na kii ay dara bu wóor na papa. macha allah waxtaan bi yanj na am na solo lool te bëri na tamit euh, ñu dugg yow rek ci biir laaj ci ba tey euh, muy li nga xamante ni moom moo di dindi liggéey. Mm. Euh, ndax doomu aadama yi dañuy dox mais ñu ci bari. Mm. dañuy jàmbat li nga xamante ni moom mooy ay liggéey yu ñu leen def mm. yu nekk seen yaram. mu mel ni rek soxna Aida daf ci am ay saafara yu yéeme yéeme lan nga ñuy wax ci loolu. papa. liggéey bi ñuy def si doom aadama seen yaram xaaral ma ñëw si fétiche bi tuuti. parce que tout le temps client di wax si li sonn ak yaa sa wax yu neex nañu parce que di nga duubale ba bu baax. ni ñu xam ñu xam ko. ngir sa waxtaan. waxtaan dafa neex papa. waxtaan bi ñu am dal ak respect ak teggin. ndax am adduna su nga internet bi am na sa yaay sa papa ne am na sa yaay sa moroom yaay sa morom papa sa rakk yi. ku nekk di la xool kilifa diine ak kilifa àdday. Mm-hmm. chercheur. ak féticheur bokkul féticheur mooy kuy rey ci kaw benn affaire chercheur mooy ki gën àll bi sooti gi ani kumati gi mooy ki xam garab bi xam àll bi ki xam rawaani bi ki xam fu mu wàccee moom mooy chercheur bokkul ba chaque jour sénégalais de confond su ñu gis soxna ki yaa sol yére da mu ne soxna ki yaa féticheur la bàyyiwul nit ki mënu tuuru doomu adama lëndëm ni nga ko tuutul lëndëm am na ku la ko génne si lëndëm. Euh, chercheur lu tax chercheur neexee papa. chercheur mun na liggéey féticheur. chercheur mun na liggéey borom al alquran. chercheur mun na liggéey borom rawaan. chercheur mun na lëndëm liggéey si batidita mori. chercheur mun na liggéey bamana la doom. chercheur mun na liggéey ñoom yëpp moo tax liggéey chercheur neexee parce que ni mu xam gundoo doon yëg gundee xam-xam. di fa dem di fa xóot dégguma wolof bu baax mais souvent mhm. dinaa wax tuuti wolof ma campal tuuti si bambara parce que bambara laa nàmp loolu laa xam mhm. comprendre euh, papa adduna bi ñu nekk ni Abdou li nga wax kontaan na trop mhm. liggéey bon yi bare na jafe-jafe yi bare na woor yi bare na dóori yaay yi bare na dóori papa yi bare na yàq der yi bare na waxi ñaaw yi bare na mais sauf ku dóori ak yaayam papa bu mu ñëw sama kër mais à part loolu yëpp ku la def liggéey bon su nga ñu ma dindi la ko ku la sànni korte su nga ñu ma dindi la ko ku la gis sa yëfu neexul dugg sa yëpp si lëndëm su nga ñu ma dindi la ko sa yaram di diis di bàyyi ko su nga ñu ma dindi la ko ñu la sànni tooge sa biir ma dindi la ko rawaan jigéen la mari nuni femme deni su nga nekk sa yaram ma dindi la ko macha allah yàlla may na ma loolu mu jarale ko sama loxo bi loolu moom yàlla subhanahu wa taala la mu neexee mais du sonna ki yaa xam moo tax mu def ko yàlla moo ko mayee macha allah foofu leer na point boobu mu mel ni rek da ngay faral di liggéey ak ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllum sport bu wanee sport nag li ko gën a euh, sooke bokk na li nga xamante ni mooy suñu tradition bi ñu xam muy làmb mm-hmm. Mm-hmm. wàllu làmb mu mel ngay jëflante ak ay mbër yu bëri ana naka ngay liggéeyee ak ñoom mm, euh, làmb plupart euh, soo nekkee ay dara bu naa liggéey ak làmb mais ma génne si internet boo ko làmb bi mooy daanu bëri bi mooy def ni non non non mm-hmm. ñun day dëpp combat fekk na combat bi yéeg nañ ko. ñu ko yéegale aduna respect la papa. rawan bu mu nangu ni sax danga ko may respect ak teggin mu nangu la. yow mi sa doom su la may respect ak teggin di nga ko xëccu sa yaram sànni ko fale. aduna respect ak teggin na combat bi ñu yéggee su nga ñu wax soo nekk am nañ combat. tel jour lañu bëre su ñu gis suñu eh, ki ñu wax combat bi waroo am victoire dinañ dëpp combat bi mais su ñu gis war na am victoire dinañ ñaan si ba mu gagné. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla yàlla may nañu mbir yu bare ñu ngi leen faju maanaam mbir bi ñu daanu ndax am mbir bi ñu daanu am na liggéey bare ñu def ko ak gàllaaji ba mu daanu yaramam di diis tànk bi di métti tout le temps mbir yi day am problème loolu problème loos problème major problème tànk yi ak yooyu yëpp mbër yi ñu day faju loolu yëpp pour boobu seen yaram nekk normal mbër yi tam yi bare ñu xam papa di waxtu du kenn mi bare na macha allah mbir yi ñëw suñu kër pour bugg làmb bi ñu ñaan leen ko yàlla su wa taala def leen ñu am ndam. acca mbër yi nga xamante ni yéen a ngi seetaan émission soxna ay dara bi dégg ngeen li nga xamante ni moom la wax day liggéey ak yéen day dëpp li nga xamante ni moom moo di ay combat day samp tamit li nga xamante ni moom moo di ku bëgg ndam moom soxna Aidara loolu la daal ci xam ne ci biir euh, laaj boobu noonu euh, fàttali nañ rek ñi ngi jàkkaarloo ak soxna ay Aidara Mboup nekkee fa li nga xamante ni moom moo di ca cité Aliou Sow mm-hmm. numéro téléphone am di benn nag 78 630 45 77 00 képp koo xamante nii rek soxla nga ay service am danga koy daal ci woo ci numéro téléphone am boobu mm-hmm. waaye ba tey ci laaj bi laay des ak yow ci mm-hmm. wàllum liggéey yi rek mm-hmm. ak ñi nga xamante ni ñoom ngay jëflanteel ba tey ñi nga xamante ni dañoo nekk ci gouvernement bi ci nguur gi maanaam politiciens yi tamit dangay faral di jëflante ak ñoom ci naka papa politiciens yi bi ñu jëflante mbir après nga wax sa waaju mu filmé bagage yi nekk nii yëpp mbëri ñoo ko moom uh-huh. mbaxane yi nekk nii mbëri ñoo ko moom uh-huh. mbëri bu bugg am victoire ñu manqué lañ ko joxe bii taxaw ñu ñu manqué lam tudd uh-huh. ndax xam sénégalais duñu comprendre suñu gis bi ne nga ne ñu manqué di wa sonna kiya bàyyi fétiche politique mën non non bokkul bii ñu manqué ni ñu ko joxe loolu la mu defar ñu ma moo tudd bambara defar lu yàqu mu defar ko moom comme président nguur mu yàqu mu defar coow bari na siro bi mu defar ku bugg eh, nekk si place mu defar moom loolu rek la mu nekk defar rek waa mbir mu ñëw si ñun pour euh, victoire su fekkee na gis nañ ko mun nañ ñu dugg suñu loxo fekkee na sa victoire bi munu nekk ñu dàpp dëpp combat bi ku wax dëpp combat amul amul xam-xam papa dëpp combat am na ñun day dëpp combat combat suba ak guddi ak fajar alhamdulilah yàlla may ñu victoire ñoom seen mbaxane ñoo tegle fe mm-hmm. euh, léegi mbuur nga wax maanaam président yi soxla bari na duñu wax tur bi kan mais na mais ku xam Sonakia day xam Sonakia <laughs> politicien la loolu lay wax Sonakia sëriñ politicien la parce que su nga nekk sëriñ papa di nga liggéey ak politicien su nga nekk sëriñ di nga liggéey ak mbër yi su nga nekk sëriñ di nga nekk liggéey ñi am ak ñi amul su nga nekk sëriñ di nga liggéey ñi am tolof to nekk si tolof to bi su nga nekk sëriñ di nga nekk ñi demuy jàpp ak ñi demuy jàppul su nga nekk sëriñ di nga liggéey ak ñi dof ak ñi doful su nga nekk sëriñ di nga liggéey tamit ñu am problème maanaam problème fam ñu leen takk ci biir kër gi di nga liggéey ak ñoom mais prépa ñu ne suñu liggéey dinañ liggéey ak mbuur dinañ liggéey ak président comme suñu nit yi waxee son ak yaa dafa cher président lam liggéey non non papa nit ku nekk leen liggéey nit ku nekk leen nekk fii waaw bisimilah maanaam say service taxu ko jafe noonu taxu koo métti mm-hmm. lépp doomu aadama bu ñëw rek dina ci gis boppam waaw ci mais papa mm-hmm. soxlaay du benn yow mën la seetaan fekk na sa soxla benn dërëm rek la nga génne kii mun na ko seetal million la mu war a génne Papa Talla bi mun na ko seetal cent la mu génne biddéo du ñu benn rawaan yi du ñu benn xam-xam papa wax na dëgg la su nga ñu soxna ki yam mu may la boo ndoyal parce que dama ko doyal dama ko doon xam-xam su ma ñëw léegi Abdou laa tudd Abdou noo sant di nga wax sa sant mhm. ñaataat la nga yor nga jox ma sa âge mhm. ma jël sa sant ak sa tudd ma xool su ma xoolee ma gis sa rawaan mhm. su ma gis sa rawaan ma gis sa biddéew rawaan bi jigéen la ma ne jigéen la su góor la ma ne góor la si ndox la ma ne ndox la si ngelaw la ma ne ngelaw la su fekkee na safara la ma ne safara la léegi si boobaa bi nga mën a jëflante ak nit ki noonu ma nit ki fekk na dafa am problème bu bàyyi papa que cent euh, francs mën na su faju soxlaam nit ki am problème bu bari est-ce que dix mille mën na faj soxlaam oh. am na nit ki sax sarax kese mën na fa sax léegi naa ne ko waxtaan ak ba tàlla loolu mais am na nit itam seen duulkat yi fenkat yi loolu léegi soxna kii ay yaram bu bàyyi tooñ tooñ baax man tooñu ma man ragalu ma man disantam mari fi janjabati lakka laaju la sànga be makka ma fi janjabate moo wax almaam Samori Touré taxawal tubaab yi dinañ ñëw dinañ la rey si lëndëm Samori Touré nee na su ma taxaw du ma daw man góor la góor du daw dina taxaw tubaab yi rey ma mais du ma daw suba ñu wax sama seta seta yi man ndaw na boobu quartier bi ngi ba ma ko mu tudd Boli Bana soo nekkee ay dara dëgg rek la mu mujj dëgg rek la mu wax lu la neexee dëgg la mu la wax su ma neexul dëgg la mu la wax papa xam-xam neex na xóot na nit ki su ma dem si sëriñ setal la ba pare gis sa rawaan gis sa biddew ba pare nga ne sëriñ si ñaata la nga ma eh, génne sarax yi mu ne 100000 200000 300000 nga jox ko sa xaalis mu dem dugg ko meew dugg ko benn affaire lekk ko déedéet du noonu di nga yónni sa yaay bi nga yónni sa papa bi nga yónni sa rak bi nga yónni sa mag ñu jënne sa sarax génne la ko foto ko yónni na ko fii seen fekkee ne yaa ngi bitim réew su fekkee ne yaa ngi Sénégal fii yow yaa dem jënne sa sarax indi ma ko man soo na kii ay dara boobu man du ma dem jënne sa sarax client yëpp xam na loolu. du ma génne sama biir kër dam jënd sa sarax su nga am sa yaay ou sa papa ou bien ku yaayam nekkul si àdduna ou sa papa nekkul si àdduna sa rakk mi ngi foofu ou sa benn mbokk mi ngi foofu yónni ko sa benn xaalis mu jëndee sa ginaar ou mu jëndee sa xar ou mu jëndee sa benn affaire am na affaire yu bare da wax nit yi génne nag loolu la wax benn kilifa ju passé ma ne coow bi amoon fii Sénégal benn bureau 1000 francs rek dafay ak nen trois takk nen nen yi alivion yi mhm. trois indi man man soo na siya ma yóbbu ko fi xorontaan yi nekk suul ko léegi coow bi fay fekk na maa ngi voyage maa ngi Dubaay ma demoon si mbuur yi set si mbuur yi li ma ñibbi si ma nekk léegi coow bi fay coow bi du am wat ma ne léegi ma fay coow bi loolu doon la du tëpp tëpp de nga ne yëpp leeral du doon papa waxal waat man ñu bisimilah. <laughs> coow li en tout ñi ko fay bari nañ. <laughs> coow li moom ñi ko fay xam naa ni bari nañ lool. waaye bu ma sobul tuuti rek sama cameraman xam naa ne après dina ma ko jëlal. waaw mu filmé ba xale mbir yi sangati mbir fekk nañ fi lu bare bare bare bare maanaam bépp plante naturelle boo xamante nii rek mii ngi ci biir. àll di faj rek fekk nañ ko ci néeg bi mm. mu mel ni yemoo ci tamit mm. seet ak faj ak mm-hmm. yooyu noonu mm-hmm. am na sëriñ su bari soo mm-hmm. xamante ni tamit yenn garab yi yow yaa leen koy fournir mu mel ni da nga leen koy fournir da nga leen koy jaay naam tamit da ngay faj tamit ay jàngoro yu bari ñu bàyyi la nga indi ci ay leeral tuuti eh, papa nga ne coo bi am na nit yu bari ñu ko tëj papa su la neex yow mii di nga tëye sa micro nga ne dem su guddi président Macky Sall ñëw na sama biir kii coow bi amoon na jour passé maa ko tëj xanaa ma la wax <laughs> naa ko client chaque ubbi leen seen bëti ngeen xool borom xam am na Sénégal ay fenkat ñu sëriñ bala nga defar nit ki sa bopp ci kaw ba si sëriñ bi est moom defar na boppam ba pare. premier deuxième est ce bi moom sax moom ñuy waxal ñëw leen ñëw leen est ce moom pere na ba pare. xam-xam loolu la mais du ñëw rek nee na ñëw leen ngeen para para dem jox seen xaalis jox ma bii rek ngeen joxe am na ñuy wax sarax ne nag mooy sarax ginaa sarax yi benn guro 1000 francs rek na ko génne sarax méttul yàlla nee ne sarax su ma ko génne papa borom xam-xam ñu ngi fi deewuñu même am na ñuy dee yëpp ñi sarax su yàlla wax na ni ñu yi xoolal na dëgg génne ko su mu teg ko sa kaw nee ne génne ko sarax 3 jours la su ma ko génne amul benn jëriñ. il faut nga dëpp wax ñu xool boromam bi nga génne beneen sarax baal pour yëfam mu baax mais sarax su ma ko waxee yéene la même juli sax pour yàlla jàpp yéene la woor pour yàlla jàpp yéene la mais su ma julli eh, génne sarax léegi papa fekk na yow yéene ko nga jël sa 100000 francs sa 200000 francs sa 300000 si xol bi tàng génne ko si sarax amul benn njëriñ sarax bi mooy mooy boobu. waaw soo nekkee ay janam bu am na lu bari mu faju papa dinaa faju humeur interne humeur externe mooy. ñu déglu français dinaa ko tàttal si wolof bi ñu am humeur bi nekk ci biir ak humeur ki nekk ci biti am na ñuy nekk humeur bi def dëtt dëtt humeur bi dégg ritax ritax humeur bi génne deret humeur bi génne euh, euh, picc si ginnaaw oubien humeur ki picc du juddu juddu lu bare loolu yëpp nu mu doon ñun dinañ ko faj fajul folie mentale façon dafa bare déception mën na ko def comme nit yi liggéey nit ki mun na ko def comme ñun suñu biir ak suñu biir mun na ko def comme yàlla subhanahu wa mun na ko def mais ni yàlla def mënu ma ko faj parce que du ma yàlla du ma yeneen xaaral papa Abdou na la wax benn wax tey mhm. ku toog si internet ne maa mun a faj yëpp maa mun a xam yëpp dawal xamul dara soo na fiya xamul yëpp de mais ni yàlla jaaral ko si loxom bi mun na ko faj doomu aadama mu kontaan si man mun na jëf parce que nit ki su ñoo ko ñaar ci yàmbala nga am am benn am na xaalis du ko sa poche ñaareel bi di na mbetteel bi si yaramam bi loolu tam ñaar ci yàmbala waaw su loolu jeex na tamit sëkkati façon dafa bare am na ñu sëkkati maa ngi jégalu waa internet bu ñu sëkkati bu def ngelaw am na ñu sëkkati bu seen dënn di métti am na ñu sëkkati bu suñu rongoy génne sëkkati façon dafa bare am na sëkkati liggéey moo ko def am na sëkkati ngelaw seytaane la am na sëkkati rawaan la nu mu doon doon consultation d'abord su loolu weesi na yaram xasan dafa bare am na siti moo ko def siti infection am na am na siti tam ñi ko judduwaale maanaam sa yaay am siti ou ba sa papa am siti loolu yëpp consultation dama ñun di faj yooyu yëpp am na siti tamit nga sekk ak sa jabar ba pare ndox bi di tuuru am na siti tam bët bi di xonqee am na siti tam maa ngi jégalu waa internet bi sinit bi di rey kattan bi du mun a jóg ni mu doon ñun day def fajulo yëpp consultation d'abord am na nañu am bopp métti yi bare far rab day def ko comme liggéey bon day def ko bopp yu métti ñëw si côté bi ba côté bi vision bi di wàññeeku tension diabète loolu yëpp dinañ ko faju ak góor yi tam ñu am problème saw pour ñu saw seen saw du ñu normal ñun dinañ faju tam ñu am problème des reins mais commencement lañ faju si dem na bu si digg bi mënuñu dugg suñu loxo mënuñu ko faju ñi tam ñu am problème digg bu métti yaram bu métti tànk bu métti ou bien tànk di eh, def briwi briwi ou bien tànk di nooy yaram di nooy eh, biir bi di sol di bàyyeeku di sol di bàyyi ni mu doon rek papa ñun dinañ ko faju waa si kàttanu yàlla tam. <laughs> macha allah waxtu bi moom ñuy bëgg a xocc. te minute yu du bari internet yi seetaan sax. dinañ sonn waaw dinañ sonn. Mm-hmm. ñu daal di koy tënk rek. ba beneen yoon bàyyi la nga tàggu. internet yi nga xamante ni ñu ngi la doon seetaan. maa ngi nuyu waa internet yëpp. nuyu sama yaay ak sama papa nuyu. kilifa diine kilifa aaday nuy tamit yow tamit papa ku soxla ku soxla soxna ki ay dara mbub ñun dinañ faju bërikat yi dinañ defar làmb comme ñuy bugg am victoire comme ñi tam ñi am problème maanaam si seen liggéeykaay problème si seen famille problème jabar ak jëkkër ba ñu leen def liggéey ba ñu leen sànni korte ni mu doon ñun mu nañ di dindi comme ñu am mauvais alerte ñu mu doon ñu mu nañ ko dindi mais ni ma lim yëpp consultation d'abord ñi tam am nañ leen sango di leen sampu sangu leen seen yaram set wit comme perka lu bon yëpp nekk seen yaram ñu dindi ko su loolu weesu na ma ngi nuyu wax adduna bi di nuy tamit Pape Mama Fall ma ngi nuyu Pape Mama Fall bu baax a baax doomu géejewaay bi doyen bi Pape Mama Fall doomu ndey Balla Gueye Pape Mama Fall bi nekk géejewaay bi di jàppale jeunes yi géejuwaay di jàppale xale yi di jàppale géwél yi di jàppale ñi def football jàppale ñi bugg def làmb di ko nuyu bu baax ba su ma ni Pape Mama Fall ba pare di nuyu seen Masamba di waajuram bu bu góor génn àdduna yàlla xari ko àdduna fi daw si di nuyu papa Talla tamit di nuy sama yaay sama papa di nuyu àdduna bi di nuyu tam papa sukran <laughs> ci barkeb say xi fàddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi barkeb sayxi fàddilu mi buur ay maqaama yàllaaw